allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame ginnaaw buñ sante buur yàlla tabaraka wa taala na julli di silmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ñi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala moom mi ñu may fanaanu jàmm yal nañu yàlla boole defal kendaluk jàmm ñoo ngi sant mboolem auditeur yay topp émission bi fii jaar rawatina waxtaanu suba si ci waxtu bi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa an yajcalahu lana xasanatan fi l yal na ñu ko buur yàlla defal yiwu keroog bés penc ci suñu téere yi jëf wala suñu peesokaayu jëf yi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ne boroom xam-xam ku mag ki ñu naan xasanul basri rahimahullah yal na ko bul yàlla yërëm yóbbal ba mu yóbbante baaxee ko askan wi mu doon kàddu ju am solo joo xamante ne kenn ko nekk su ñun war na xel ba tax na xasanul basri rahimahullahu taala moo ñu ne ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk nee doomu aadama bi de dafa war a xam ne bés ya muy mooy bés ya ko fi tax nekk ba tax na war naa bàyyi xel ne bés yooyu de bépp bés ba ñëw jaar jàll ba xamal ne am na lu deñ am na la wàññeeku ci sa dund bi ba tax na danga war a bàyyi xel ne bés yooyu de bu ñu demee dootuñu delsiwaat moo waral xéewal ba ñu yàlla may mu doon xéewalu nelaw bañ doon def waxtu su niiw ci ginnaaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gannaaw bi nga yeewoo ci nelaw boobu noonu yàlla jagleel la nelaw mu doon xéewal bala yàlla jagleel kon boo defee loolu yàlla xéewal la mu doon nelaw boo jógee ko ci nelaw woowu dafa am li nga war mel dafa am li nga war a def loolu nga war a mel wala loolu nga war a def yonent bi jàngal nañ ñu ko sallallahu alayhi wa sallam mooy baat yañu tuddoon bañ doon waaj a ubbi jotaay mooy alhamdulillahi alladi cant ñal na boroom bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom la ñuy dellu dellukaay bu dëggu bi dellukaay dëggantaan fa yàlla dong la duñu dem ci kenn bu dund bi jeexee waxtu bañu ñu dëxalante yàlla bu jotee bem ñu faat du ñu dellu ci kenn du ñu dellu fenn ku dul fa moom ba tax na yéena ngi fàttali keroog bam doon wax bakkan ba yàlla gërëm dund ba mu ci anam ba mu dundee rawatina bakken bu tënk boppam ci ndigle yaa ko yàlla digal waaye bakken boobu mooy bakken ba sore lépp lu ko yàlla tere bakken boobu bu ko yàlla di wax génnal nga fekk ji sa borom mala dugal ci jëmm ji dafa am wax ju teey ba ko yàlla di yónnee ko message mu doon da ko naan yaa ayyatuhan nafsul mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya mu daldi ko baaxe xiwal ba nga xamante ne ëllëg bés pénc kay jox mu ne ko fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati yow bakken bu teey yow bakken bu sell yow bakken bu ñoŋ bi yow bakken bu baax bi yàlla ne la irji'i ila rabbiki ginnal nga dellu fa sa borom raadiyatan mardiya borom bi gërëm na sa dundin ndax danga nangoo tënk sa bopp ci lim la digal waaye danga nangoo sore ci lépp li nga xamante ne tere na la ko ba tax na comme borom bi dalaa gërëm ci sa dund bi nga doon dund gannaaw bi nga gërëmee tëralin ak atte ak ndogal ya yàlla dogal ci yow kon bés penc yàlla dala ne fa duxuli fi ibaadi kay nga ñëw dugg tàbbil ci sama jaam yu sell yi sama jaam yu baaxi yi wa duxuli jannati kaay nga ñëw dugg sama kiru arjana bi nga xamante ne man yàlla maa ko waajalal ngir sama jaam yu baax ñi yàlla bu ñuy tàqale ko ak dund àddina yàlla aaya bi doon lañuy ñuy accompagner amin ya rabbal alamin du jaas waaye sañ nañoo ñaan yàlla mu defal ñu comme nam ñu ko diggee yan nañu yàlla may fan bu gudd ànd ak tal ànd ak yaram amin ya rabbal alamin kon ndegem fa moom lañuy ñuy dellu fa borom bi tabaraka moo tax nga déggee aaya bi jeexalee ci arjana yàlla waaye moo tax nga déggee ñaan bi jeexee ci yàlla lañuy ñuy dellu mooy alhamdulillahi ledi cant ñal na borom bi tabaraka wa ndax mooy buur wi nga xamante ne ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mbokk yi ñaan bi nga ñaan ko gannaaw bu la yàlla wërsëgalee bi nga jóge ko ci nelaw nga tàmbale sa bés bi sa journée bi ak la nga xamante ne mooy baat bala yonentu bi baaxee neela yow jullit bi boo yeewoo ci nelaw na nga wax lii su ko defee ñu bindal la yiw bu toll nii danga naan ak neexoon may nelaw di yeewu di ñaan ñaan bi aka neexoon may nelaw may yeewu di tudd baat bi di épargner ay tiyaabo yu kenn xamut na muy toll kon yow mi ñuy topp ci réew Rewmi FM 97.5 nañ leen bokk xerewlu teewlu la nga xamante ne mooy yëbbal ba ñu yenentu bi baaxee sallallahu alayhi wa su ko defee nga tàmbale sa bés bi ak ñaan bi nga xamante ni moom nga sant yàlla yàlla daal la xéewalal la nga xamante ni mooy la des ci bés bi mbokk yi xam ngeen ne démb bañ doon yëkkati jotaay bi ñu ngi yemoon ak yéen ci ña yàlla ne ñooñu ñaa bëgg ña nga xamante ne ñooñu laa tànn ngir ñu taxawee sama néeg ya nekk ci kaw suuf di jàkk yi critère ya ñu war a lamboo melokaan ya ñu war a melo waaye jikko ya war a nekk ci ñoom bi léegi mu bokk ci ne kooku dafa wara jikkowu muy taxawal julli buñ ne julli nag ñu ne sola buñ ne asalaatu mu doon jokkalekaay bay jokkale jaam bi ak boroomam te mu doon la jaam bi soxla lool waaye mu doon la tax borom bi bind ko ngir muy dottil xéewalam fa moom ndax looloo tax borom bi binduñu subhaanahu wa taala buñ ne nag ñu ne njëlbeenu julli mooy julli suba ba nga xamante ne jullit ñi moom lañuy ñuy tàmbalee seen bés ba njëlbeenu waxtu ba ñuy tàmbalee seen bés bi mooy waxtu bañ doon def ak waa jàkka ja ci ginnaaw tuuti rekk mu doon waxtu yu julli suba ngineel ba fa nekk ngineel ba nekk waxtu yu julli fajar ngineel ba yonent bi sallallahu alayhi wa won xeetam ne ngénneel ba nekk ci waxtu julli fajar mu doon njëlbeenu waxtu wa nga xamante ne jullit ñi moom lañuy tàmbalee seeni bés boobu nga xamante ne ca lañuy ñuy dund la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam lañ leen fas yéene dëgtal ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa mu yombalal ñu ko bañ ko mën a leeral comme na mu nekkee waaye mu yombalal ñu tamit ñuy wara a mën a taxawee waxtu wuubu di ko joxe ci jàkk yeeg mbooloo bi te mu doon jëf ji nga xamante ne jëf ju muy nangu la fa moom ba tax na fadlu solaatul fajar ngéneel ba nekk ci julli fajar qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla subh fa huwa fi zimmatillah yenent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na waxtuy fajar da di waxtu ju am importance dadi di waxtu ju am solo ba tax na yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu man salla subax képp ku julli suba képp ku suba fa huwa koo ku julli suba de fii zimmatillah mu ngi nekk ci sécurité yàlla yàllaay sécuritél boppam jaam ba julli suba ca mbooloo kon yow mi ñuy topp ci Rewmi FM 97.5 jarul ñuy géema def leneen ngir mu aar ñu jarul ñuy dugal suñu bopp ci leneen ngir utee fa kaaraange danga bëgg kalay aar danga bëgg kaaraange sallallahu alayhi wa sallam ngi nii baaxe na la la nga xamante ne mooy kaaraange ju mat sëkk kaaraange boo xamante ne kóolute ba fa nekk mënoo koo am feneen fudut foofu mun na ko am ci keneen ku dul fa moom tabaraka wa taala moo tax yonent ba mu yónni ci ñun won ko la gisul xamal ko la kenn xamul yonent boobu sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee xadiis bi ne ñu man salla sobe képp ku suba fa huwa fi dimmatillah kooku julli suba de moo ngi nekk ci sécurité yàlla yàlla subhaanahu wa taala garanti jëmm jooju sécurité ju mat sëkk kon yàlla képp ku mu aar dala mënut laa lor yàlla képp ku mu muur malaanum sécurité amul dara luy joge ko feneen lalay lor kon jarut ngay dugal sa bopp ci lu wuuteeg njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ngir sàkku sécurité walla ngir sàkku kaaraange am na ku dëkk bu ñu nekk walla jamono bu ñu toll ku bore ñu bore daan sa kaw ku borewul ñu bore daan sa kaw ah kooku de sañ kaa wax ne xanaa danga déggul xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa walla boo ko déggee est leer na la walla yang ci jëfandu jëfandukaay ba toll ni xam nga lam la wax dëgg dëgg dëgg dëgg wallahi képp ku dégg xadiisu yonent bi sallallahu alayhi ne la boo defee nii nii ngay am boo melee nii lii lañ lay fay kooku du fi nekk di sikki sàkk ci yonent bi nga xamante ne moom la yàlla xamal lu kenn xamul moom la yàlla won lu kenn gisul kooku la yàlla tabaraka wa taala garanti kàddum ne du wax ci coobare bakkenam xanaa kañ ki doy na garanti tontu bi mooy waaw waaw kon bu fekkente ne yenentu boobu moola ne ngéneel ba nekk ci julli fajar ba tax na képp ku julli suba ci mbooloo ci waxtu wa ci jàkka ja mu ne la yaa ngi dugg ci sécurité borom bi war nga kaa mën a gëm ndax moom la ko yàlla xamal subhaanahu wa taala tax na mu ne la man solla sobhi képp ku julli suba ci mbooloo ca waxtu wa fa huwa fi dimmatillah kooku ngi nekk ci sécurité yàlla kooku yàlla mooy garantie sécurité yàlla moo koy aar kaaraange ba muy sàkku ca la muy laal ca la muy takk ca la muy puusu wala ca la muy mel na wutek na ko islaam jàngale yonent bi nee na képp ku julli suba ci mbooloo yaa ngi nekk ci sécurité borom bi tabaraka wa taala kon jarut ngay dugal sa bopp ci leneen lu wuuteeg la yonentu bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yal na jàmm yalla nekk ci yéen ak seeni njaboot bi léegi ngeneelu julli fajar yonent baa ngi ñuy baaxee ci beneen xadis ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man solla albardayn daxala aljanna albardaani salaatu alfajr wa salaatu alasr saxiixul buxaari mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ñu baaxee mu ne ñu man sallal bardayn daxalal janna ñaari waxtu yu sedd yaa ngi nii képp ku nekk di ko julli be faatu ci da nga dugg àjjan albardaan ñaari waxtu yu sedd yooyu ñu ne mooy salaatul fajr julli fajar wa salaatul asr ak julli takkusaan mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot sallallahu alayhi wa daf ñoo tànnal ñaari waxtu yu sedd ñaari waxtu yu julli yu sedd ñaari waxtu yu julli yu yemamaay jullit bi war kaa mën a joxe ci waxtu yu neex a joxe waxtu yu julli waaye waxtu yu naqaree joxe ci ki ngëm am tuuti faiblesse waaye képp ku sa yàlla chargé comme nangay ngay chargé sa batterie téléphone ñaari waxtu yooyu dañuy doon waxtu yu sedd guy ci sa dund ngir nga mën a kaa jooxe ba tax na sang bi nee na sallallahu alayhi man sallal bardayn képp ku julli képp ku sax di julli ñaari waxtu yi sedd yam la bugg joxoñal nii nee boo ci saxee ba dee fekk la ci danga tàbbi arjanna mu ne ñaari waxtu yu sedd yooyu ñaari waxtu yu yemawaay yooyu mooy waxtu yu julli fajar ak waxtu yu julli takkusaan nga xam ni fajar boo dégloo noddkat bi nam lay yee ci nodd bi noddkat bi dafa am lu muy soppi ci nodd ba muy nodd ci jamonoy fajar bokkul ak na muy noddee ci jamonoy tisbaar bokkul ak na muy noddee ci jamonoy takkusaan waay bi léegi bokkul ak na muy noddee ci jamonoy timis noonu la wuutale ak noddu ba ñuy noddu waxtuy geewe waxtuy fajar noddukat bi bala muy jeexal nodd bi day dugal benn message bay wone ne yow jullit ba nekk ci sa kaw di nelaw am na lu gën la nga nekk fekkee am na lu gën nelaw ba ngay nelaw am na lu ëpp yiw nelaw ba ngay nelaw ba tax na noddukat bi ngay dégg mu naan la assalaatu xayrun min annawm assalaatu julli de xayrun moo ëpp yiw moo gën min annawm nelaw ba ngeen nekk di nelaw julli jokk sa jëmm ji ci sa borom am audience bu toll ni ak sa borom moo gën moo ëpp yiw moo ëpp dayo nelaw ba ngeen di nelaw comme ndax ko suñu kilifa bi di waxee nee na nelaw bu mag ba ñuy waaj nelaw keroog ci suñu kër yu mujj kon nelaw yi entraînement la waaw nelaw yi échauffement la dañuy entraîner allahu akbar ndax nelaw boobu da nelaw bi nga xamante ne dootoo jóg kenn du la yee bés pénc dong ngay yeew ca ngay jóg nelaw àddina si dañuy nelaw ñu duñ yee yeew waaye nelaw bu mag boobu de ah képp ku ko sóoraale képp ku ko bàyyi xel kon nelaw ba ñuy nelaw fii ci àddina duñu teree jóg dem wuyu la noddukat bi di woote ne julli moo gën nelaw kon noddukat bi bu dee danaan asalaatu xayrun min an naw julli bi de jokk sa jëmm ji ak sa borom moo gën moo ëpp yiw nelaw ba ngeen di nelaw ba tax na képp ku ko dégg danga nga jóg da nga war a bàyyi la nga nekkee da nga war a bàyyi nelaw ba ngay nelaw dem joxe la nga xamante ne mooy waxtu woowu moo tax yenentu bi ne ñaari waxtu yu sedd yaa ngi nii ñaari waxtu yu yemawaay yaa ngi nii képp ku di dëkkee di ko julli ba dee fekkalo ci tabbi nga arjan allahu akbar mu ne ñaari waxtu yu yemawaay yooyu ñaari waxtu yu sedd yooyu mooy salaatul fajr mooy julli fajar wala julli suba mooy julli bañ daan julli fii ci kanam tuuti rekk julli nañ ko ci ginnaaw dans une heure de temps wala dans deux heures de temps julli nañ ko yonent bi nee na ku julli waxtu woowu ak ñetteelu waxtu ba naan takkusaan ci faratay yi nee na ku julli ñaari waxtu yi nga dëkkee ko bu la ci dee fekkee tabbi nga arjan moo tax mu ne albardaani salaatul fajr wa salaatul asr ñaari waxtu yu yemawaan yooyu ñooy julli fajar mooy julli bañ daan joxe ci ginnaaw tuuti ak julli takkusaan ba nga xamante ne dëgmal na ci ci kanam incha allah dinañ ko fekkee yan nañu fi yàlla bàyyi bañ ko fekkee mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xamal xam-xam joo xamante ne kenn naataable wu ko raw fi ñëpp sut fi ñëpp te kenn jàngalu ko sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee manqukaay yiw bi ni mel ndax mbaaxu yàlla ci yonent bi yërmande ba mu am ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte suñu at matu ko suñu kàttan matu ko waaye jagleel na suñu yonent bi ak xeetam sallallahu alayhi sallam ngi jëf-jëf ju ndaw jëf ju tuuti mu sell te jekk ñu fay ci yiw boo xamante ne boo doon dund junniy at doo ko am ci yiw boo doon dundu junniy at doo am yiw mu waaye yàlla ñu ko jagleel sallallahu alayhi wa sallam ati matu kattan bi matu ko waaye nga jëf-jëf ju ndaw ñu fay yiw bu toll ni ku dund junniy at mënu koo am ci yiw kon yal nañu yàlla fayal suñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëkkati jotaay bi yegg si nañ fu ñu war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ca nasaraan ñuy ñaan yàlla ñëpp kuy topp émission képp kuy bàyyi xel jotaay bi yal nañu yàlla may dégg ak topp nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana lépp lu jub ci kàddu gi ñu santee ko yàlla lépp lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu la boole jéggal amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baarakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu